te leneen luy wone ne président Macky Sall nekkul ci décrispation ku mel ni euh, Cheikh Bara Ndiaye démb ba léegi ñu ngi dégg commentaire yi ñu ne Cheikh Bara bàyyi nañu ko am na liberté provisoire ba ñenn ñi sax yaakaaroon ne démb xëy na këram lay reeri jee mhm. il a fallu que Moustapha euh, def précision de taille buy wone ne bien que euh, le juge jox na ko liberté provisoire des na léegi ci procureur pour mu xool ndax day def appel wala day bàyyi juge bi lu mu décider mu nekk loolu ça nous renvoie à débat yi nga xamante dañ ko fi posé temps yi yëpp mooy doole bi nga xamante ne ni le procureur de la république am na ko ci am réew bu mel ni Sénégal ah. puisque le juge juge xam nga yow dossier Cheikh Bara Ndiaye da nga ñëw nga ne mhm. euh, placé nañ ko su mandat de dépôt ñu ne déféré nañ ko au niveau du parquet yow nga ubbi une information judiciaire ma ngoog jël son dossier confier ko à un juge d'instruction yow le parquet moom mooy jël dossier bi confier ko à un juge d'instruction léegi juge d'instruction boobu ci càmbaram mu jàpp ne kat kii nga xamante ne yow jox nga ma dossier am amatul pour nekk prison di xaar quoi que soit. Mm-hmm. man juge d'instruction bi jàpp naa ne fi ñu toll nii kat contrôle judiciaire maanaam ñu bàyyi ko mu dem ñibbi këram. Mm-hmm. tey ñëw di signer moo gën ci moom moo gën également ci justice. léegi yow procureur de la république nga xamante ne nii yow dañu ne tu l'avocat de la société nga ne non non non yow kooku doo ko bàyyi mu génn même bu nekkee ne juge bi wax na loolu. xam nga loolu ça montre sa montre Euh, doole bi nga xamante ni procureur am na ko mën a ab juge jël décision procureur bi ne juge bi kat décision bi mu jël kenn du ko appliquer te procureur boobu ñu xam ne c'est le ministre de la justice moom moo ko mango ministre de la justice boobu di rendre compte directement au président de la république xam nga dans pareil cas de figure ñu ne le procureur c'est l'avocat de la société ñu indil ko dossier Cheikh Bara Ndiaye xam nga les deux questions yi nga xamante ni war na koo posé wu. Mhm. mooy que kii est-ce que bu ñu ko bàyyee mën na constituer un danger pour la société. Mhm. maanaam koo xamante ni kat dañ koo jàpp ci euh, jàpp ne terroriste la c'est un poseur de bombe nga ne kii kat suñu ko bàyyee xëy na mën nañu am possi mën nañu xalaat ne dina def jëye joo xamante ni ay nit nañ ci ñàkk bakkanam. Mhm. wala nga ne kii kat dossier bi nga xamante ne nii euh, moom la ñu koy toppee. dafa am ñu mu ko seqal wala dafa am ay témoins yoo xamante ne ni suñu ko bàyyee moom mën na génn corrompre euh, témoins yooyu wala mu am fu mu jaar ak ñoom ba ñooñu du ñu mën a ñëw témoigner au tribunal ñaari question yooyu la war a posé wu ndax kii il constitue un danger wala kii mën na influencer d'éventuels témoins dans ce cas loolu yëpp amu ci ñu gis ne li nga xamante ne ni euh, moo waroon a nekk. ñuy euh, maanaam di que euh, euh, le procureur de la république nekk avocat société bi di xool li nga xamante ni moo baax ci société bi mu di ko topp ñu gis ne kat kii dafa jàpp ne dañu ko ne yaay avocat société bi moom mu bëgg a nekk avocat ab parti politique. Mhm. di wax ne Cheikh Bara Ndiaye kat su génnee def ay analyse am xëy na du baax ci Benno Bokk Yaakaar xëy na du baax ci régime bu Macky Sall kon vaut mieux ñu bàyyi ko mu continuer nekk en prison loolu su amee. naka la ñu mën a waxee naka lañu mën a parler de décrispation wala bu boobaa day mel ni rek <laughs> politiciens yi la concerné mais ñi nga xamante ni ci société civile bi la ñu bokk ça ne les concerne pas te li koy gën a wone mooy euh, Aliou Sané Aliou Sané day jiite Y'en a marre que coordonnateur f waaw yow ki nga xam ne koo xamante ne nii dañ ne dañ ne ne da nga dem kër Ousmane Sonko loolu mooy délai bi dem kër Ousmane Sonko ñu ne <laughs> participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public parce que jéemoon na dem kër Ousmane Sonko mu dem ñu mandat de dépôt ko le ju euh, comment dire le procureur choisir euh, ab juge d'instruction kooku ubbi information judiciaire Aliou Sané présenté wu devant lui kooku may ko liberté provisoire procureur wiiriwaat na day def appel parce que kat liberté provisoire boobu ñu accordé euh, Aliou Sané arrangé wu ko parce que booy bi gis nañ ko depuis ba mu génnee ba léegi ay manifestation la fi wootee lu lu ñu xamul mais dans ce cas de figure yow naka nga mën a euh, euh, comment dire ne président mu ngi ci décrispation Macky Sall kay ci li mu nekk mooy bàyyi waa Benno Bokk Yaakaar ak seen coow Macky Sall ci loolu la ne parce que soo seetloo depuis ba mu jëlee décision bi ba léegi dafa mel ni kuy profité ci avion présidentiel bi balaa moo dem. su nekkul du tàggatoo. <laughs> bërki démb ma nga woon euh, Rwanda. Mhm. mu ne kii moo ko invité euh, Kagame. ci mhm. xaw ma international des fois moom la nag lan ma nga fa woon ba mu fa jógee ma nga woon Uganda tey maa ko gis muy tël bal Russie. xëy na day tàggatoo aussi comme que. Eh, te te xam nga leneen lu gën a. garaaw sax xam nga lu leneen lu gën a garaaw. te bu à chaque fois ñuy wax ci euh, le drame de l'immigration dañuy mettre en exergue ñàkk fayda gi nga xamante nii ñun pays africains yi suñu njiit yi ñàkk nañ ko fayda xam nga sommet bii nga xamante ne ni Russie la ñu wax ne moo koy def ak Afrique Russie un pays. di woo tout un continent. ma ngoog ne day day def sommet ak tout un continent. Mm mais xam nga pression bi nga xam ne pression bi États-Unis def ak France pour que pays africain bañ dem répondre à à Poutine. kon ils sont en train de mettre la pression. mais nga di pression la ñuy teg les pays africains pour que ñu bañ dem wuy ji Poutine. kon ñun sax bu dem wuy il faut ñu am aval les. Euh, <laughs> waa Occident les pays dégluwu <laughs> <laughs> pour une fois. ah ça c'est bien ah, parce que sommet bi. suba lay commencé le 27. Mhm. mais Macky Sall depuis démb ma nga fa. pourquoi parce que boo bàyyee xel ci li xew ci dernier développement de la guerre en Ukraine objectif Russie Russie tey. Mhm. bokk na ci le contrôle total de la mer Noire. mer Noire boobu l'essentiel des céréales céréales yi Ukraine di exporter. te mu sakkan ba dee falay lay jaar. suñu demee ba nga xamante ni russe am na contrôle total bi blé bi daan génnee Ukraine ak yeneen céréales yi dootul mën a Ukraine même bu ñu ko bayee dootuñu am possibilité génne ko wala dañuy jaar ci d'autres moyen yoo xamante ni soo accès fii day gën a cher. Mhm. léegi Russie ne leen <laughs> comme que ñoom dañuy contrôler la mer Noire di xëy na dina leen xañ euh, céréalu euh, Ukraine. mais ñun waa ñun Russie pare nañ pour jox leen suñu céréales. waaw comme que ñun moom on est des mendiants <laughs> mais xam nga euh, dé démb euh, euh, maa ngi koy wax xëy na ça n'a rien à voir ñu extrapoler un peu. Mhm. maa ngi koy expliquer démb que euh, Poutine quand il est arrivé au pouvoir en deux mille trente et un décembre quatre vingt dix neuf deux mille la dugg si. Mhm. Russie ñu ngi woon ci trente six million de ton de blé. 36 millions. 36 millions de tonnes en 2020 en deux loolu 2000 la en 2020 vingt ans plus tard ñu ngi ci à 80 million de ton de céréales. Mhm. xam nga tey bu doon Russie ab dëkku comme sunu dëkk yii la. Mhm. nga xam ne embargo lañ lay def un an ñu commencé witti xobu niim yi di togg. assuré nañu seen autosuffisance alimentaire yàgg très bien ils sont autonomes <laughs> très bien li tax Macky Sall ak ñeneen parce que tey bu ñu demee ba nga xamante ne ni Ukraine amatul possibilité exporter euh, euh, euh, céréales yi lii xew mooy Russie mooy am stock yi nga xamante ni da koy mën a livrer te bu boobaa pays yu mel ni ay Égypte ak yooyu ñoom ñoo koy gën a ñoom ñoo ci ëpp accès Sénégal parce que moyens yi ñu am pour def ko ci Sénégal amu ko. bien moo tax. ñu ngi naan États-Unis ak France euh, lobbying bi ñuy def pression bi ñuy teg certains pays. dina mhm. dina sottee du sotti Macky Sall moom jël na avion ba. <laughs> ma nga Saint jiitu nga leen ma nga dégluwuma leen sax ma nga saint xam nga loolu eh, di revenir aat ci eh, lu ñu doon wax la dernière fois que ma le président Macky Sall fi ñu toll nii nekkul ci dynamique wu léttu waa Bennoo wala mu firi leen. li mu bëgg mooy bàyyi leen ñu nekk ci seen pëccëxoo boo pëccëxoo boo xamante ni à un moment donné li ñuy mën a retenir mooy que président Macky Sall kat c'est la seule constante ki nga xamante nii bu fi nekkul dara du baax dara du leer comme moom nu mu leen ko junjee parce que unité bi nga xamante ni nee na leen su amul gisuma seen avenir moom leer na ko ne unité boobu mënul am. léegi bu ko defee yëf yi bu pëccëxoowee am na. nit ñi di tojante seen boobu moom mu ñëw pour comme il est le <laughs> boo xam ne mën a def l'unanimité mu jël les cartes mu jël carte yi ama ah mais te loolu <laughs> écarté gu c'est c'est pas écarté pour seen pour pour pour le cas Ousmane Sonko parce que rebondissement wu Macky man wax waxoon naa ko fi fois je ne defaguma toujours croire ci que Macky Sall du présenté waat defaguma ci croire malgré yi xew na yëpp parce que boo xoolee aussi les partis membres de Benno Bokk Yaakaar mm. logiquement ñu toppee logique bi rek le exemple taxawee ne il n'est pas candidat ñoom waroon nañoo génn ku nekk ne comme il n'est pas candidat léegi ñun tam nañu seen candidat mais ba léegi les partis bu mel ne AFP parti socialiste ak yeneen parti yu bokk benn ba léegi kenn déclaré candidature mais duñ ko déclaré par exemple tey ñoo dafa am lu ñu yëg lu ñu yëgul ñun euh, euh, euh, non yëguñu dara sax Macky Sall <laughs> nga bu yàgg laa laa doon expliquer que euh, président Macky Sall même bu amul woon intention présenté wu moom mënu koo expliquer puisque am na ñoo xamante ne nii ñu ngi nekk ay alliés bis bu ñu jàppee ne Macky Sall mii kat pare na ci pouvoir bi ñoom dañuy xooli kan la ñuy jiital pour mu nekk seen candidat loolu c'est également valable pour ñi nga xamante ne nii ñu ngi à des postes stratégiques di jàppale Macky Sall ci mhm. euh, euh, comment dire jaay doole bu muy jaay doole ñenn ñi yow leer na la ne <laughs> maa ngi doon joxe exemple bi la dernière fois de benn grand moom may expliqué ne yaa jàmme li tax mu félicité Adama Baro ne ne gagné na élection yi quelque temps après rek mu ñëwaat ne non non gañewul <laughs> nee nañu bi mu ko nee <laughs> yaa gagné dafa génn ñoo xamante dañ ko daan tóojal tout le temps saa yu ne tël rek ñu ko nee na bu mu def leen nii bulóot loxooma changé de camp. ma ngoog c'était voilà c'est ça ça aurait nga woo benn commissaire ne ko defloo ma lii moo xam ne kii nii kat set mois moo ko fi dese pourquoi may def loo xamante ni teguwul ci yoon pour koo xamante ni day dem. mais bu leen leeree ne euh, Macky Sall mi nee na day nee na day forcer candidature am te ak li fi xew nii yëpp mën na force candidature ba jàll nekkaat fi au delà de deux mille vingt quatre yow di nga gën a ñeme xëy na yenn ordre illégal yi nga xamante. Mhm. Euh, illégaux yi nga xamante ni dañ na koy jox. Mhm. <laughs> donc ma ne ci ñàkk a présent ñàkk a wax boobu ba léegi ne du présenté wu xëy na loolu mënoon na ko expliquer même si dans la réalité mosul ñàkk bëgg a présenté wu. troisième mandat te man jàpp ma ne génn na ci puisque yow boo ne euh, li mënoon a tax mhm. ma présenté wu mooy Sénégal am une menace pour sa stabilité mhm. lépp menacé wu waaw te yow génnewoo woo ci loo génnoo ci loo xamante ni moo fi mën a indi menace génnu ci de mm. puisque tey bu ñu toogee ñu ne xëy na Sénégal du àttan ñaari manifestation yoo xamante ne nii euh, euh, day mel ne yu juin yi bii passé wala yu mel ne mars deux mille vingt ñu ne Sénégal du mën a attan ñaar yi d'ici deux mille vingt quatre. Mm-hmm. ñu ne kon jàpp Ousmane Sonko instant yi bi mën na créer manifestation mais déclarer candidature am que demee tamit ce ne sera pas recevable mën na indiwaat. beneen tension beneen mu nekk cocktail bu explosif mu nekk cocktail molotov léeg-léeg euh, cocktail explosif. <laughs> waaw <laughs> ministre de l'intérieur cocktail molotov lay bañ. kooku wax nga dëgg de te malheureusement cocktail mol xaaral mu bañ a ñëwaat mu nekk benn cocktail explosif boo xamante nii yow tu te dis tu te dis que instant yi nii puisque euh, Ousmane Sonko dañu ko jugé en tant que contumax ñun ci sunu loi yi. contenance bu spécial. <laughs> waaw bu spécial parce que xam nañ fu mu ne nee nañ yóbbul nañ ko foofu sax ab euh, comme comment dire convocation juge yow compte max ñu ngi yóbbu nga xam nga ñu dañu la Sénégal du réew continent à part la. léegi ñoom mën na nekk seen stratégie ñu ne comme assemblée nationale kan ñu ngi fay voté lu ab loi boo xamante ni kuy compte max doo bokk ci élection yi. Mhm. léegi ñu amatuñ pour jàpp ko dañ ko bàyyi. <laughs> comprendre mhm. léegi comme ça. ñu ngi déroulé de gars yaa ngi déroulé de non ñu ngi déroulé te ku jàpp ne Macky Sall génn na. ñu ngi déroulé bu baax a baax <laughs> ñoom koy dañuy jël seen stratégie en fonction des difficultés yi ñuy dal dajeel sur le terrain. Mhm. <laughs> bu bu ñu ne tey jii nii Ousmane Sonko ca assemblée nationale kat dinañ fa dugal benn loi boo xamante ni suñ ko voté képp koo xam ne dañ la jugé. par contumace par contumace doo nekk candidat. donc ñun soxlawuñ ñu koy jàpp nañu lever barrière loolu ça peut une <laughs> une explication. Mhm. parce que euh, quelque part euh, euh, euh, comme man ngi koy ni ma la koy waxee sànq bu ñu jàppee ne di d'ici deux mille vingt quatre état bi mënul attan ñaari secousses yoo xamante ne nii comment dire dina mën a dina pousser sénégalais yi à ñu manifester par pendant après ñu ne leen arrêté nañ Ousmane Sonko wala suba gannaaw suba ñu ne leen Ousmane Sonko nekkul candidat. Mhm. ñu ne léegi au lieu ñu koy def ñaar. nañu modifier code électoral bi bàyyi Ousmane sonk en tant que contumax ba xool ce que ça va pas ce qui va se passer demain ce qui va se passer demain nag mooy dynamique bi ma la doon wax sànq ne la ñoom leer na leen ne bu lépp jaaree yoon parce que dañu naan waa que ñoo bëgg coow mais waa que xam nañu ne lépp ne teg lépp jaar yoon mooy seen arrangement. Mhm. parce que ñoom woote wun ne dañuy jël le pouvoir par les armes dañ li ñu woote mooy dañuy euh, comment dire participer sénégalais yi votel leen ñu gañe ñoom loolu la ñu jàpp donc ma ne li leen gën a arrangé mooy lépp jaar yoon lépp normal ay résistance ak ay manifestation yooyu c'est nekkul seen intérêt mm-hmm. intéret ki nga xamante intérêt la ki nga xamante ne nii moom jàpp na ni kii kat su leeree ñu bàyyi lépp déroulé wu comme euh, euh, euh, ni mu demee woon en 2012 mm-hmm. kenn du ko nekk très nekk président léegi dynamique boobu dynamique boobu <laughs> Macky Sall génn gu ci fi ñu toll nii ay stratégie la ñuy dawal di xool fi nga xamante ni moo gën a euh, euh, mooy gën a euh, comment dire douce ci ñoom. Mm-hmm. pour ñu jaaree fa. Mm-hmm. parce que du début jusqu'à la fin jusqu'ici si boobu amul lenn loo xamante ni teg nañu ko nga mën a xoolkat ne lii nii ah article nangam bu constitution bi wala article nangam bu code de procédure pénale permettre na ko état bi ñu teg ko diw. comme ni ko euh, Jibi Gueye Ndiaye waxee. Mhm. que ñoom ñoo jëloon seen i barrière teg ko en toute. Euh, illégalité illégalité ñoom ñoo ko yëkkatiwaat tàgguwuñu kenn. kon c'est un non événement. kon c'est un non événement. Mhm. xam nga Sénégal euh, quelque part dafa am changement de de de de de de de de psychologie. Mhm. xam nga ñun bi ñuy nekk. bi ñuy gën a nekk ndaw. bu buñ daan fubal kenn ki jëluñu ko mu ne du génn terrain bi <laughs> wala ñuy bëgg a kenn ki téye bal bi. borom bal bi fubal waaw. <laughs> Euh, suñu suñu fa nekkee naan di di ko menacé tegal bal bi wala nañ la def lii dinañ la def laa boo tegul bal bi affaire demee noonu wala boo génnu terrain bi nañ la def lii dinañ la def lële ba mu mujj génn xam nga lañ koy wax du ko wax de am nga saas <laughs> am nga chance lañ koy wax puisque dafa nekkoon ci loo xamante ne nii. amu ci droit amu ci droit. ñu wax a wax a wax a wax ba sonn boo au dernier moment mu accepté lu ñu ko wax dañ naan dañ naan ko am nga chance mais léegi Sénégal <laughs> ni ñuy xalaatee mooy nit ki jàpp na ci loo xamante ni amu ci droit mooy ci mooy ci ñëpp wax mu ne du ko bàyyi. amoo ci droit mu mooy ci du ko bàyyi ba saa su ko bàyyee. <laughs> ñu koy félicité ñu félicité ko. waaw la même chose bu le président waxee ne il ne nit ñi di ko félicité alors que c' est n' a pas droit a félicité. <laughs> très xam nga euh, euh, euh, par rapport ak sunu question bi man j' aurais que la réponse soit oui que Macky Sall. dégg na dégg na Ousmane Sonko man j' aurais que la question soit oui. xam nga lu tax fi ñu toll nii euh, président Macky Sall ay quelques mois moo fi dese taw bu mu taw barki démb wane na ne inondation yi daf ci échec. waaw te inondation yooyu bul fàtte ne en 2012 bi président Macky Sall accès lu mu njëkk def mooy supprimer le Sénat. Mhm. bi nga xam ne Pape Diop moo ko jiite woon. Mhm. li Macky Sall njëkk def. mooy supprimer Sénat ne ñu. institution budgétivore. institution budgétivore ne xaalis bu doon dem ci Sénat moom lañuy jël dolli ko ci leneen pour xeex définitivement inondation yi. ba pare ma yokk la ci bul fàtte levé nañ fi fonds boo xam ne sëñ mu taxaa ay génne lu toll ci un milliard sax joxoon joxe woon ko temps yooyu sax kii ni may Ndiaye mu ne ko ministre de l'intérieur ma léegi moom xamuñu xaalis bi fu mu dugg. ma ngoog officiellement ci seen compte bi sept cent soixante six. milliards 756 milliards la woon en 2021 yokk nañ ci yeneen 10 milliards 766 milliards yoo xamante nii dañu ne woon dañu koy xeexi mbënn ñi tey bi ñu ne Macky Sall ay mois ñoo ko fi dese quelque jour la taw Dakar gis nga ko dans beaucoup de quartiers circulation bi pratiquement c' est impossible. mais du Dakar Touba gisoon nu mel maa ngi gis Mamadou Matar Sarr am na reportage bi ci def fële ca Ndaamaatu. Mhm. Euh, même pas euh, du d' semaine ba Mamour Diallo demee fa euh, wax ni da injecté nañ fa cinq milliards. Mhm. mais ba mu tawee dañoo gis nan ma quartier yoo xamante ne ñëpp génn nañ seen kër sax dem di fanaan ci. yeneen gox goxaat yi. bërki démb maa ngi bind benn article ci aéroport Cap Skirring une semaine taw. aéroport boobu nga xamante ne nii duudu ko ay milliards la ci def ne woon ñu c'est la deuxième porte du Sénégal après Diass une semaine la taw mu mel ni marigot. <laughs> maaru tarmac bi benn avion dafa wàcc. <laughs> am na benn avion Air Sénégal dañ ko dëppal. mënu ko dëppal fu muy wàcc ci at. comprendre donc question des inondations tey jii nii bi nga xamante nii ñu ngi naan Macky kat président sortant la gis nañu échec total bi mu ci am.